taalibéy murit ya nekk diwaanu Tiwaawan ak la ko wër tënku ci kuréelu Matlabul Fawzayni jiitu sëriñ Abdou Karim Ndiaye jëwriñ ñi kër sëriñ Touba ga ca Touba di leen yëgal bis ba ñu fas yéenee ubbi jumaa ji ñu doon liggéey ñu boole ko ak bisub alquraanul karim ak xasida ba ñu baaxoo ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ca kër sëriñ Touba ga ca Tiwaawan régalul sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général des Mourides sëriñ Babacar Sy Mansour jullee jumaa ja bu ñu neppee bernde ya teg ca njàngum xasida ba ñu sëlmal takkusaan def jotaayu waxtaan ba ñaan yebeeku ku ci bëgg barkeelu 77 647 99 35 daayira Matlabul Fawsayni ti waa woon a ubbi jumaa ja ak bisub xasida yi la nar liggéey jumaa la ca diw yàlla rekk ko xam te pay moo di texeeg fii ak texeeg fa jëm bisub xasida bu ànd ak alxuraan di sikkar siyaare waxtaane mbaaxu gaa yu baax dafa war murid ya nekk ca biir kër Maodo duñ xajamal